bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima yasurru rasulallahi xatibi mawlidi يدوم لنا بسرا في خير مودي وخاني إلهي كل در بجاي من لو دهر ختي دون لخو ومفسدين محمد المختار لم يات مثله وليس يجي مثل له نحم الزيد مرامي من المولى تاني بلا أسن بجاه سفي العالمين المحمدي وسرت برب العرش حبدا له به وما سال قلبي بالرضا تقيدي لخير البرايا من خلام بسارة ولي خاد تحسيسا بنفس تهتدي دعاني إلى إحياء سهر كونه لخير الورى صرفا حوى كل مفسدي إلى خيرنا تنهار مفاسد كلها وتنمو لنا خيرا من خير منجدي سببت لخير الله ما لم يلق به وسب لخير الدهر مولاي عسدي بالمختار وجهت ما به أويت سلالا سافيا خير موردي إلى الله بالمختار وجهت ما به أويت سلالا سافيا خير موردي الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki julli di bokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal di ñaanal a cheikh muhammadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba lépp lu mu naalal lislaam mu àggale ko ànd ko ak mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa ak ak mbooleem kilifa diini yi ak jullit yi nu bëgg ànd ak yéen ci fàttali dara ci nafar waxtaane aslëf ci dundu Sëriñ Tuubaa jataay bii nag niñ ko amale ci kër sunu wëlëre yi ma la wax sëriñ Bekkaay Mbub di kenn ci tali bi sëriñ Tuubaa doon koo xam ne ku sëriñ bi yitteel la ñu di ko ñaanal yàlla sunu borom gën koo kattanal te dëgëral ko te dëgëral njaboot gi yëpp li ma waxoon léegi ne sëriñ bi rek a tax jëf yi te moo ko waral sëriñ bi nag waxtaane ko mooy waxtaane yàlla ak yonent bi ndax daraam génnul borom bi subhanahu wa daraam génnul sangam ba di Mustafa sallallahu alayhi wa ba tax amul wenn dàkkantal wu gën a rëy ci moom abdullahi wa xadimi te moo di jaam bi nga xam ne dafay jaamu boroomam te dëgg-dëgg jaamu na ko sunu boroom diglee waaye di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ce nanga xam ne noona la yelle te ware ni di bijjanti nit ñi di leen jubal ci yoonu jub di leen wommat jëme leen ci yoonu baax ak yoonu texe Cheikh Ahmadou Bamba moomu nag la Cheikh Ibrahima Diop al Machari waxoon rek ba muy tagg sëñ bi ba yàgg dane ko fa kullu matxin baliixin qiila fi rajulin fa anta saaxibuhu yaa ayyuha rajul wépp tagg wu baax wépp tagg wu jot woo xam ne yëkkati nañ ko jëmee ko ci nit ku baax tagg woowee yaa ko yaayoo yow Sëriñ Tuubaa kon loolu day wone ne lu ñu mën a wax ci moom ci ak baax wax ko ci ay jikko ak taxawaay yayoo na ko waaye di nafar ak dundam di ko waxtaane di ko delloo si lu am solo la ndax la ca bokkul dañ di ko ci boole wala la ca bokk ñu bokk caa génne te Sëriñ Tuubaa taxawaay bu ràññiku la am taxawaay bu leer la am ci digganteem ak boroomam digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa koo xam ne léppam daf ko jëme ci boroomam wax ne danaa ko jaamu ci farata waaye bu ma ca noppee rek sunna laa cay teg abudu rabbiya bi xayri ni ba'da al-faraa'idi wa yu'li minani wér googu mu wéral mbiram nag tax na muy koo xam ne dafa feeñ jamono rek mat sëkk li almashari di wax ne qad naa la waxta siba ma ajiz kubara ci waxtu rawam la làmboo loo xam ne wedem loo na mbooleem gaa yu baax yu mag ya daan na ni ak magam jakke rafet mat noonu la ak rawam mate daal dina jaay na lépp luy bakkan ak bànneex ci waxtu ndawam jënde ko nag ak jub moo tax nag mu làmboo njariñ loo xam ne du jeex mukk nekk koo xam dafa ñëw rek namm boroomam jublu boroomam def yitte muy boroomam teel a sóobu ci jaamu yàlla nga xam ne ci waxtu raw la daan taxaw di naafila te booba sax dalagul jàng ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke nettali ci Minanul Baqil Xadim waaye nekk koo xam ne it dafa masa woon ginnaaw masa woon ginnaaw ñooñ àdduna te moo di bakkan ak banneex ak seytaane yi nga xam ne ñoo àdduna ñooy ànd di nooni doomi adama waxtu wu ne muy won ginnaaw àdduna ak yi ci biiram di not bakkanam di xeex ak seytaane won ginnaaw bànneexam amul genn jubluwaay dem bay ñaan boroomam na ko dang ma may xëbliyal waraq waaye bul yam ca may ma ak sàmm waaye nag ma may ak tàggalikoog lépp loo xam ne mooy bidaa ak lépp loo xam ne bànneex la Sëriñ koo xam ne réew mi mu di Sénégal dafa nekk ci continent bu ñuy tuddee Afrique aw nit ñu ñuul am fi waaye réew mii di Sénégal der bu ñuul yaatu fi lool mu ñëw nag ci jamono boo xam ne fekk na diine ci boppam mi di ko bundu xataal ak di ko xatal mu ñëw nag ngir libérer l'islam taxawu diine noonu ko Cheikh Moussa Ka radiyallahu taala anhu waxee ne lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sawu jant fépp mel ni làmbaay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkeb jiili ne yàlla may shafii kulla jiili may xadimu rasuli fi sudaani may ram mu xaradu bi ani niiraani loolu it mooy li Cheikh Mouhamadou Diop Paxa wax sultaanul arifin wax ne la si xad jaa wa diinu mayitam fa axyaaw shaxsan fi l amaakini dafay mel ni kon fekk na diine ci ay xat-xat mu ñëw na xal yoonu jub ak yoonu baax soññi nit ñi jëme leen ci sunu borom doon koo xam ne bi mu jógee rek nekk ci keppaaru way juróom Sëriñ Mbàkke Morante Sëli te way juróom ñu xamoon ko ci jàng ak jàngale mu siiwoon lool ci réew mi bu ko bindkat yi tagg dañuy wax ne bahrul ulum namirul ma'i mawrud géeju xam-xam la boo xam ne di naan waay du balluwaay bu ñëpp daan dellu waaye mu nekk ci ronam lu toll ci fanweeri at yoo xam ne du taxaw du taxawal lu may ne ci ndigalam am yitte ci jàng jàngale waaye ñooñ àdduna di ko fekk ci wet gu nekk waaye taxul mu masan mu ngoo jaxasu ñoom keroog bi way juróom génne àdduna sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali gis nga ye ca xew ba ñu ko proposé bëgg koo jubluwaale ci ñuñ àdduna dafa tontu tontu loo xam ne dafa dëgër saxal wéetal boroomam saxal doyloo yàlla te mooy fa qultu xasbi rabbi bi bihi wa lastu raadiya xayra al almi wa diin man daal yàlla daf ma doy te doyloo naa ko lu dul xam-xam du diine nag awma ci jublu awma ci bëgg ca loola rek la ma sa taxaw loola la ma sa def yitte loola la ma sa def ak bëggam mboolem fu ma sa dégg ku baax moo xam muy boroom xam-xam wala muy walliyu sëriñ bi dem na fa ziyaara la fa jultu bayna al ulama wal awliya loolu kon waxama boroom xam-xam yu bari dem na ci seeni keppaar waaye walliyu yu bari it ñi ci doon dundu dem na siyaara ji leen ñi fi nekk loo it am na ci ñun dem na ci seeni bàmmeel ziyaare leen mboolem ñu fa ji ko jiitu woon it kenn ku ci nekk la nga indi mu nangul la ko rafetlu ko ba boo xoolee ci biir ay mbindam danga nga ca fekk turi gaa ñu baax ñooñu ñëpp mu di tudd ko Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani wala Cheikh Amadou Tijaani wala Chazali wala ñeneen ndax Serigne Touba dafa nangul kenn ku ne la ko yàlla jox gis nga ko bu lay jàngal ci fiq sax da nga dégg mu tudd wala bu lay jàngal ci tasawuf dana tudd imaamul Ghazali ñoom junne di ñëpp lay tudd noonu lay mel nag bu dee wax ci madahib yi muy ngir it day tudd imaamu Maliki tudd Shafi'i tudd Hanifa tudd Hanbal boo demee ci xasidaam googu di Sindidi gis nga ba muy wax bi malikin dil masaya Shafi'ina abi Hanifatin Ahmad al Mahmudi Allah kon noonu mu mel ci yooyu noonu la meloon ci suyuxu turux yëpp. waaye noonu la meloon it ci mboolem boroom xam-xam yi kenn ku ci nekk nangu la mbiram am yitte ju rëy nag ci daw jëm ci boromam rek ci roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël yonent bi nag def ko muy wasilaam ba mu jaaree ci béréb yi mu war a jaar ba egg ci yonent bi alayhi xam le ne kat man de sama wasila mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Tuubaa yonent bi la bëgg yonent bi la jël def ko muy sëriñam wasilati abuduhul muxtaar sayidina huwa bi man aba taqdimuhu xufida mooy koo xam ne képp ko bañ ak jiitoom yàlla gotti la ndax anta sabil bikal wusuul yow ci boppam yaay yoon wi yaay yegg waay wi waaye képp koo xam ne day sàkku yoonu jub wala yoonu baax bëgg egg ci boroomam mënta jaar ci kenn ku dul yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent boobu nag mu jël léppam jaay ko jaay ko ko jël engagement Sëñ Tuubaa dafa am engagement am ambition yu rëy te xam fi mu jëm bi muy engagé dafa xam ne ubayyihul yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullahu al wafa maa ngi jaayante tey kan laay jaayanteel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la saxaaba yi defoon jaayanteeg Mustafa sëñ Tuubaa nee noonu laa def jaayanteeg yonent bi ci di ko liggéeyal waaye moom li tax mu wuuteeg ñu bari moom dafa wax ne dama koy liggéeyal ba ëllëg bañ dem àjjana adduna duma fi nopp lu mukk waaye bu demee ba àjjana ëllëg it ba yàlla atte jaam ñi ba kenn ña war a dem àjjana dem àjjana bu ma demee ba sama këru àjjana it man sëñ Tuubaa du ma toog ca kër ga damay delluwaat dem fa Rasuul dëkk di ko liggéeyal kon xoola boobu engagement axdimuhu ila duxulil janna daaril qaraari wal munaa wal minna dama koy liggéeyal ba àjjana waaye bu ñu ba àjjana sëñ Tuubaa dafa ñaan yàlla na ko man bu ma nekk àjjana di dund bànneex waaye wajaxal nii bi jaahihi mi man yaqdimuuna fi janna nan man noome boole ma ca ñay ne ca kër rasul lay di ko liggéeyal ci àjjana xoola kon ban bis lay noppalu amut te dana woon yaf na ladi min umri qad baqiya fi shukri wal xidmati insha rabbiya sama dund gi man sëñ Tuubaa li ci des lépp dama koy jeexal ci sant yàlla ak liggéey rasulullah lu tax may sant yàlla yàlla daf maa jagleel may xaadimu rasul shakartuhu is xassani bi xidmatin ma xissani saa xidmatin fi alani nii wa fakka wallani kon sant na yàlla ci jëf gi ko def mu nekk xaadimu rasul mu ne dama koy liggéeyal ba àjjana liggéey boobu ma koy liggéeyal nag majaal yi ko mën a liggéeyal yépp bari na waaye mu di ko tagg du julli ci moom liggéeyub géej gi liggéeyub yar nit ñi lépp ma la ngir liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sa séntuwu ci dara pay gu teew dana lim doon jëf lépp du duuna kasbin fihi ajzaaw maanaam jëfu ko ngir payu àdduna jëfu ko ngir dara day mel ni buñ ko doon laaj dañ koy laaj loolu yóbbee tagg rasulullahi mu ne bëgg ko loolu yóbbee la géey rasulullahi mu ne bëgg ko nga xam ne kon daxaa nii ilaa matxi nabi xubbu daatihi daxaa nii ilaa matxi nabi li ma yóbbee ci tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy li ma yóbbee ci di ko liggéeyal it mooy bëgg ko kon bëgg bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa moo ma yóbbee ma di ko tagg moo ma yóbbee ma di ko liggéeyal te waxtu wu ne dama koy liggéeyal ci di ko tagg ci di ko way ak di ko wesar diirub maa ngi mën a wax baa ma am kattan lu ko waral li xubbihi li annahu awlaa biya min nafsi allati adabiya bëgg ko rek ko waral ndax sama bakkan sama mbugal rek la kon bëgg yonent bee ma yóbbe ma di ko tagg ci guddi di ko togg tagg tagg ci bëccëg yi tagg yooyu ma ko doon tagg nag nga xam ne léppam yonent bi salaaw salaam la ko jox ruuxam njabootam ay way juróom alalam lépp nee na addi rasulullahi la ko def fonk yonent bi ba dex ko dimension boo xam ne dafa yàgg ci di wax ne ba jaaltuhu turaban alihi yaa laytani laxidani bi fadli yonent bi bu taxawoon du ma lànganoog moom sama leex dama koy ruur ca dal di dalli rasulullahi nga xam ne ci sama kaw leex bi la rasulullahi di taxaw wax na yonent bi bu doon dox ba yàgg mu bëgg a teg tànkam ci ak dëkk wala jiit ba ko fett wala jaan ba ko mat damay fil tànk ba nee dandale ko jël sama lex bi dëpp ko ca dégg rasulaay joggi ci beneen lex ba xaddil bi xaayatu rijlil mujtaba min shawkati ma yudaha aqraba doom ni mu neexe alal ni mu neexe ay dëkkaale ni mu neexe sëñ Tuubaa ne lépp amul place ci sama xol ndax li ci li ma ko war a mën a bëgg lépp effacé wu na rasulullaay rek a fi nekk maxat mahabbati al muxtaara sayidina xubbil magaaniya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaaun lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada samay doom amuñu sama xol sama njaboot samay taalibe samay moomeel lépp rasul lay nekk sama biir xol tax na ma fàtte wurus tax na ma fàtte xaalis tax na ma fàtte ay naari góor sama bëgg gépp daal mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente moo bëgg nag di ko liggéeyal mu jël ak dundam séddale ko ñaari xaaj juróom weer yu teru muy tagg yonente bi salaatu salaam juróom benn teru muy julli ci yonente bi alayhi salaatu salaam salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maati saa boole koog di ko roy na ndax yàlla yonent bi lañu royloo walakum fi rasulillahi uswatun xasana kon mooy roy téef bi nga xam ne ku bëgg egg ci yàlla wan ginnaaw jub gi rasulaay indi sag jub yàlla du ko nangu te sëñ Tuubaa nee na araam na ci ku topp li yonent bi indi nga mën a tàbbi àjjana xaraamun ala man hudaahu abaa duxuula jinaanin daxiilan tariix wa man lam yalij nahjahu yuntazar bi xullin thaqiilin wa naarin lafa ku sóobuwul yoonu yonent bi day sëñ Tuubaa nee na sawara rek lañuy xaar boo xam ne wu tàng lay doon ay ceen yu mën a lëg moo fay nekk kon mënee suta egg ci yàlla te jaaroo ci lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam andi moo tax mu ne rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi xururul yaati yaakaar àjjana te jaaroo ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa nee na loolu ay wor rek la mu jël dundam gépp jëmee ko ci tagg yonent bi ak di ko liggéeyal liggéey boo xam ne ak jëf yoo xam ne lépp lu muy bëgg ci tey ak ëllëg ci loola la koy yaakaare lépp lu muy sàkku ci loola la koy yaakaare lépp lu muy bëggit bëggam googu ma nga jëm ca liggéey bi muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loola nag may ko guddiyam bëccëgam subaam ngoonam daray Sëriñ Tuubaa mës sa kooj ni perkaal bi mu daan sol mel ci weex noonu la mel ci jikko noonu la war ci belo amul benn gàkk sero fot Cheikhul Khadim la Cheikh Ibrahima Diop di ko tagg ba yàgg mu ne ko salimi kullu min danas bihi oduwuna xanas wa faaxa xidmatu anas wa imaamul xadimi dangaa set wicc ci gàkk amoo benn taas sero fot xadim wa salimi nal afati jumlatiha wa man nifaaxan bi ma imaanihi mazija gëm gi mu gëm yàlla dara kooju ko wéetal layaalihi asraarun wa ayaamuhu hudan wa awxaatuhu barrun wa anfaasuhu shukur ku dem yëpp dayaale yàlla nga xam ne wirdam mooy alquran ayaatu rabbil wara awraaduhu wa lahu fi kulli waqtin biha asnal munaajaat lan mooy sàkkutee fa mit wa kasbuhu sarmadan tawxidu xaaliqihi wa matu muxtaari xayri bariyaati loolu rek la sëñ Tuubaa dëgmal loolu nag guddeem yooyu bëccëgam yooyu mu dëgmal jox ko boromam bu yemoon ci tàgg gi ak julli rek doy na sëkk ndam ndax nopp mës a dégg ku bind lu toll ni li sëñ Tuubaa bind jëmee ko ci rasulullah bët mës gis ku bind lu toll ni sëñ Tuubaa bind jëmee ko ci rasulullah te sëñ Tuubaa lu mu bind dafa tàggoog bokkaale yàlla lu mu bind mën a su cee koris ak virgule ndax katabtu wa kulli faaraqa danba wa shirka wa qablu shara rabbi alladi biatuhu tarka bind naa sama lépp tàggoog ak shirk muy bokkaale ak bakkaar ndax barraani l ilaahu min shirkin wa min kulli nifaaqin wa saadati damin yàlla ma setal ci nafiq setal ma ci bokkaale ba noppi sama texe yàllaa ko garanti joxuma yàlla lii bàyyi lii man malaktu rabbi maliki moom moomale naa yàlla sama borom rabbi sama borom kulliyati sama lépp xaali lahu ka amali wa niyati sama melo sama jëf laa amul kàttanu mën koo jëf te ko lépp jox naa ko yàlla looloo tax nag yàlla buccal ko ci lépp loo xam ne gàkk la buccal ko ci lépp loo xam ne taas la mu bind mbind yoo xam ne ni mu ko bindee kenn mës a bind mbind lu mel noonu bu dee tagg yonent bi salaahu salaam dafa waxoon ne euh, yonent bi day danaa warlu ci moom ay tagg yoo xam ne tagg yu tumuranke lay doon tagg yu raar lay doon tagg yu neex lay doon waaye warlu naa bor ci moom boo xam ne it at mu jot danaa ko fay yonent bi ci ay tagg am na loolu du doon bor te du doon euh, addiye waaye coobarewu la ma warlul ko at mu jot ba jébbal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lil mustafa al karimi fi kulli sana alayya am daaxun tura mustaxsana di ko tagg nag xasiday tag yi boo xooloo lu mel ni mawaahibu naafi'a boo xooloon lu mel ni muqaddamatul amdaax boo xooloon lu mel ni raiya boo xooloon lu mel ni jësbul xulub boo xooloon lu mel ni nuuniya muy xattaaba wala nga xool miimiya muy alqalbu minniya fii salima muy xat salima wala xasaay di nga xam ne ci tagg yonent bi salaahu salaam xool ni la sëñ Tuubaa di jàngale rasulullahi salaahu salaam ci melaw yi mu am bu la koy portaleel taar bi mu lay jox yonent bi ni mu meloon taxawaayam bi mu amoon tey gi ko suñ borom téye loon jekk gi daje woon ci moom lépp bu la koy tàggal ni mu la koy waxal waaye bu lay wax beru gi yonent bi beru ci ay jikko ak melokaan ba xamal la ne yonent bi daal mooy koo xam ne képp ku réere jiitu gim jiitu moom rasulullahi sëñ Tuubaa nee na ab dof nga ku réer nga ku yàqu nga ku alku nga man shakka fii taqdimihi fa jaahilun wa gaafilun wa jaahilun wa daahilun nee na képp koo xam ne yaa ngi sikk sakk ne rasulullah yi jiitu nee na ab dos nga ndax rasulullah moom ñetti jamono rek a am sëñ Tuubaa nee na ñetti jamono yëpp rasulullah ci raw muhammadun xayru man xaabu wa man xadaru wa xayru aatin wa taati minhu al-bushra la wéy rasulullah gën li fi nekk rasulullah yi ci gën lii ñëw suñ ginaaw lépp rasulullah yi ci gën daal di wax ne yonent boobu nag mooy ki nga xam ne dafa juddu gën képp ku juddu gën ñëpp ndey ak baay waaye gën ñëpp dëkk bu mu juddoo man mi wax nafaani man lam yakun bi waladin wala bi walidin fa taaba xaladi ala alladi wulida xayra waladin wa xayra walidin bi xayri baladin dana yàlla jariñ na ma moom yàlla mi nga xam ne mooy ki amul ndey amul baay jurul kenn kenn jurul waaye ci kan la ma jaral ala lazi wulida xayra waladi ki gën jën ku gudd ku ci kaw suuf rasulullahi la gën wa xayra walidin ku am ñaari way jur rasulullahi la gën ñaari way jur la tàmbalee min la dul aadama ba fa adduna yab min al bidaaya ila nihaaya ku jigéen su ko jur rasulullahi la gën ba noppi gën la ay way jur nag wa xayra walidin wa xayra baladin nag ba noppi gën la dëkk bu mu juddoo kon rasulullah jiitu ci gën ñëpp wayjur rasulullah gën ñëpp ak juddu rasulullah gën ñëpp dëkk moom juddoo Sëriñ Tuubaa ne ci kii la ma yàlla jariñe moom rasulullah sallallahu alayhi wa ne nag xanaa ku réeree ko xam man shakka fii kawni ibn abdallahi nuuru wara fala ku sikk sàkka ne doomi abdullahi ji mooy leeruk jamono jant bi li muy leer leer ci biir leerug rasulullahi lay xëcce weer wi li muy leer leer ci leerug rasulullahi lay xëcce sëñ Tuubaa nee na min nuurihi kullu nuurin saatixun bi sana nuuru nujum wa nuuru samsi wal qamar jant bi fi ne li muy leer leer ba leeral adduna bul ko dugaloon ci biir leerug rasulullahi day giim weer wi kasalik luy leer rek ci biir leerug Mustafa nga génne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa ne kooku daal Muhammadun xayru man yamshi ala qadamin muhammadun xayru man lillahi xat sajada ku teg ñaari tànk ci kaw suuf di dox rasulullahi la gën kuy sujjóot rasulullahi la gën gënaayu rasulullahi moo feeñ ci léppam yàlla setal léppam moom yonent bi sallallahu alayhi wa is gis nga yonent bi ibrahima ay maamam ibrahima ñu tax doonu julit ismaila maamam yépp ay tànneef lañ bi mu min salilin nga xam ne sang la boo xam ne dafa jóge ci càllala gu sell te moo di fa bàyyi ko moom rasulullahi sallallahu alayhi kooku kon mooy ki gën ci kaw suuf ñëpp aw xeetam gën ci xeet yàlla defal ko mber moomu kenn amul moom rasulullahi da koo def muy xeet yu gën jox ko diine ji gën jox ko téere bi gën weer wi gën ne ci moom li gën ci weer yi ne ci mboolem ngënee li tey ëllëg yàlla da koo teg ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ba noppi yàlla may ko kenn dul am sëñ Tuubaa ne bu ñu demee ba yowmal qiyaamatul akbar ba jàmm ñëpp taxaw kay jëkk a fëgg àjjana koŋ koŋ koŋ koŋ ñu ubbi mooy rasulullahi awwalu man yaqara baabal janna ahmaduna al muxtaari muhyi sunna waaye sëñ Tuubaa teg na ci lu doy waar dana sabaqtu xayri ila al jinaani maa nabiyi al qurashi al adnaani ku dul rasulullahi man ahmadu maa lay jiitu àjjana maag rasulullahi rek ñooy dugal sabaqtu xayri jiitu naa ku dul ilal jinaani ci àjjana maa nabiyil xurayshi la adnaani te yonente bi jëkk fu fakk butu àjjana yonente boobu sallallahu alayhi mooy ki ame ràmm gi ëllëg bu ñëpp jàqee ci tiit yonente bi sallallahu alayhi bu jant yi dajee ba ni lii mooy jant yi mooy seen jant samsu sumuusi ra'su ru'uusi xayrul aniisi lil awliyaay sifa suduuri diyaa uduuri badrul buduuri sëñ Tuubaa nee na jantub jant yaa ngoog mooy rasulullah weer weer yaa ngoog mooy rasulullah kii leeral lëtti ëtt mooy mooy rasulullah mooy ki nga xam ne moo kawe ñëpp moom sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa nee na laqad tabayyana li kulli si'tida an ibna abdallahi xayru maxluqillah sëñ Tuubaa képp ku am xel te dofuloo xam nga ne ki gën ci kin war roy mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa daan na man nag kookee nag man rasulullah bihi arum jamii al xayri min maliki fa huwa al wasilatu fi sirri wa fi alani ci kooku laay sàkkoo lépp lu ma bëgg waaye xoola si tubaab bi la koy tàggal rasulullah ni mu gën a yaa tahirul asan ibni tahirul asan ibni tahirul asan waaye yow yaa baax aw askan yaa baax njaboot yaa gën ñëpp yaa gën a sell daray rasulullahi yemut ak daray kenn ci kaw suuf daray rasulullahi yemul ak daray benn mbindeef ci kaw suuf ëllëg ñëpp ci daraje rasulullahi la leen suñu borom di rammoo yonent bi alayhi salaatu salaam moom nga xam ne melokaan wu rëy woowu mu dajale moom la sëñ Tuubaa jël addunaam jël ëllëgam jël léppam jox ko yonent bi moo tax mu wax ne chakartu man jaala fi xayaati bishra rasulullahi bil ayaati sëñ Tuubaa nee na maa ngi sant yàlla lu ma tax di sant yàlla mooy dem def gi def sama dund gii di mbégteem rasulullahi sëñ Tuubaa yonent bi day bég ci ak moo tax yàlla nomee ko mu nekk xadiim asnal xadiim nag di ki gën a kawe ci ñi liggéey rasulullahi sallallahu alayhi dara musu koo gaar musu am jënn yitte lu dul bëgg yonent bi sallallahu alayhi yonent bi la bëggoon ba xàmmeewul sukkër xàmmeewul kaani sëñ Tuubaa daawul xamee caf nga sukkër ci mus ko day sukkër di di ko yëngal muy ko bay jàpp ni kol di mel wala laalo mu xam ne ndox baaxoo wut jàpp mu yëg ne saf na sax Massamba Mbacké nee na am na bis mu xelli kaasu ga jox ma ma naan daan na ko mbakke saf na de mu ne ma man de ma sàmma yàllaa ko bu yonenteem def maa saf ba suukar safatuma nee na ñu tàmbali ci jataay ba di waxtaan di tudd aw nit naan diw sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam sëñ Tuubaa ne leen ñi ngeen di tudd de boo leen sama tur fa seen kanam ñoom dana ruus ba am gàcc waaw nii Masamba ndax yéen xam ngeen sëriñ bu mat sëriñ nan lay mel sëñ Masamba na ko mbàkki bu ñu ko xamee jël de mu ne sëriñ bu mat sëriñ day toog ci jataay bi di berndeel ñooñam di xettali ñooñam ca barzaq te da wóote ñu ne ko Mbàkke kon sëriñ bu mat jafe na de mu ne soob na yàlla ne seen bos man na ko soob na yàlla ne seen bos man na ko waxtu wu nekk bëgg gi bëgg yonent bi ko yóbbu mu ne daxaa midaadi xadaa xaaji li xidmati man tabshiruhu daralal aadaay ansaana sëñ Tuubaa nee na sama xalima gi saa yi ne ko sëpp di bind jëme ko ci tagg Rasuulullaah mooñ gi monente bi di mooñ yëg gi mu yëg ne maa ngi bind bu ñu ma doon teg mbugal yi gën a diis du ma ko yëg ndax mbégtam rasulullahi tey lu natt rëy rëy lu pexe rëy rëy rajawtu annaka taxmiini wa tansuruni nasran asisan bi nayli min ka ridwaana xam naa ne lu yàgg yàgg daal yàlla da nga ma dimbale da nga ma soutenir taxaw ma ci béréb bu nekk looloo tax Sëñ Tuubaa jommal jamono ba ku ma sa jël xalimaam jëm ci moom di ko wax xam ne jaaxle nga ci moom moom Sëriñ Tuubaa mu nekk nitu dëgg. nitu jub nitu melokaan la ko waa Madina waxoon rek keroog ba ñu yónnee Omarul Kurdi wane melokaan yi ne ci moom xam na jafe-jafe am na ñu yónnee ci sëriñ tuba boole ci délégation bu ñëw ci moom indaale bataaxal lañ wax ci Serigne Touba rek wone na loolu. nuurul wilaayati saatixul burhaan yaxza lahu mutanawil al azaan fanzur lahu mutajalliyan fi wacci man jalla suwaad al jahli fi sudan saaka al imaamu Cheikh Ahmadu man gada متربيا بالحمد والشكران شيخ الطريقة والحقيقة والهدى هادي wara بالحق والإيمان loolu waa Madina ko wax nee na boo xoolee xar kanam bi rek xam ne wuñ na ak réer ci der bu ñuul mooy ki boole jub woo nit ñi ci wambat leen jëme ci suñu borom moom Serigne Touba boole sharia ju wóor boole xaqiqa ju wóor na Serigne Touba ñaari tànk la taxawee ujaddidu shariatul mutahara inshaa wa xaqiqatul munawwara danaa leeral sharia ba mu leer waaye danaa leeral xaqiqa ba mu leer loolu moo tax ñu naan sëñ Tuubaa amul morom loolu moo tax ñu nu nu mel sëñ bi looloo tax ñu naan lu ñu xam ci yàlla sëñ bi lu ñu xam ci yonent bi sëñ bi ndax sëñ bi waneewul boppam daf ñoo ñëw ñëw xool ñu ne waa jaage muy rasul la wan ñu ne benn borom a fi am muy yàlla kon ki la ginte sëñ Tuubaa damay wax sëñ Tuubaa boo ci dee concentré wu da ngay gën a nangu yàlla gi maanaam ci sëñ Tuubaa nga mën a gën a gëmee nekkuk yàlla gi ndax benn li tax sëñ Tuubaa fi ko awale fépp ngir jël bakkanam fi ko awale fépp ngir ay nattu bu fekkoon ne yàlla niwut fi wetam di ko wétali kon sëñ Tuubaa li mu réussir di ko réussir kon xanaa war ngaa gëm ne yàlla moom nekk na ndax noon yi ko doon attaqué sëñ Tuubaa lu ne def nañ ko sëñ lu ne def nañ ko gas nañ kàmb tabal tabal ko ci boole nañ ko gaynde kafe gi nuy naan pose posé nañ ko jox ko mu naan ko lu nekk def nañ ko moom Sëriñ Tuubaa jël nañ ay dawkat jal ko ci kawam lu ne def nañ ko tedd ki waaye luñ ko mës a def rek mu waxal boppam ne muhammadul mun jii dawaa man xadimahu rasulullah mii daal waxtu ne mooy mooy mooy muccal ki koy liggéeyal wallahu yaxmii ni wa yaxmi jamia ma yaxtaar fi daarayn yàlla daal moomay aar aar sama lépp moom borom bi subhanahu wa taala kon da ngay xam ne lu koy lu ko muccal yàlla fu ñu ko mës a yóbbu bi ko tubaab yi tëkku dane fu ñu ma yóbbu te yàlla nekku fa daal seen pexe mën naa sotti waaye fu yàlla am du ma seetaan kenn du la nettali li mu nekk nekk ci nasaraan yi mësta tiim mësta faa doxtu bu ñuy maaj mu taxaw ci seen biir di tàggatu muy jëm ci boromam rek di noddu ca kaw liqaam julli doon koo xam ne nungu gi nungu kenn mës a gis nungu gu mel noonu ne seen biir wéet lool te mësunu mësta xàmmee ku koy xoqtal ak ku ñëw fi moom di ko jéem a def menn mbir moom li mu dëgmal ci boromam kenn mënu ko cate kenn mënu ko cate nasaraan bi dem ba xam loolu yàlla muccal ko amma na lil baaqi alladi laysa yamut wa kullu man qasada dur yumin yàlla muccal na ma yàlla garanti na ma sëñ Tuubaa moomu na kon muurum adduna muurum Afrique la muurum Sénégal la muurum der ñuul la muurum lislaam la sëñ Tuubaa fierté la war a nekk ci képp di su ko concurrencer sëñ Tuba du ku ñuy concurrencé du ku ñuy wutal moroom gàcce la lay jural sëñ Tuba amul moroom sëñ amul moroom ñu koy wax waxee ko ci par dañoo yori gët yori nopp di dund di gëstu dañoo mës a gis ku mel ni sëñ Tuba wala ku def lu mel ni sëriñ Tuba wala nga mës dégg ku mel ni moom xanaa naar yii di bind Mahmoudou Daymani xanaa boroom xam-xam la Bababu Mahmoud xanaa borom xam-xam la Tijaan bu Baabal Ali bii xanaa borom xam-xam la kenn ku ci nekk bu yëkkatee xalimaam di jëmee ci Sëñ Tuubaa lam lay wanal ku mel ni Sëñ Tuubaa mës saam bi misli cheikh lam nasma xadisa wala fi saali fi dahril qadim naar bi nee na adduna ji ñëwee ku mel ni Sëñ Tuubaa nekku ci fii jamono bii nu nekk ku mel ni Sëñ Tuubaa mës saam baaba bu Mahmoud lu mu wax haza alqadimu min alkamali ajaiba wa maqaamu fii uyunu taxaaru lam tasma asba qattu bi mithlihi wa shabihu lam tubdil abzaar nee na àdduna kenn mës dégg ku mel ni sëñ Tuubaa li mu jëf nattal ci mbiri zahir yi bul ko baatineel defal lu la neex bu ne sëñ Tuubaa julli na ci géej gi bul ko jàngate ci ne xar baax la wala baatin la yàlla doo ko jaral cëppeelu ci mbaar julli doom kenn defagu ku sibru doo julli ji ba say tànk méttee nga toog bu dee taxawee képp bu ñu la convoqué woon te ji tribunal doo tala julli sëñ Tuubaa ci digg mbéex mi jëf dana rëy ngir fan ko jëfee da xool contexte bi ko sëñ Tuubaa jëfe ak li mu ko jaral loolu dafay honneur u nitu lislaam tey dañ ko waroon a jàngal waa adduna moo tax bu ñuy wax murid yi dañuy bokkaale gëmuñu yàlla ak ñun duñ bokkaale sëñ Tuubaa dana uwaxidullah wa lastu ashrak shay'an bihi xëyna siwaa yushrak sëñ Tuubaa nee na man damay ber yàlla na yàlla képp ay yàlla waxtu boo may yàlla képp yàlla bokkaale ku dul man bokkaale na yàlla ñu ne la xoola ki sànni deram julli taxaw ci kanam góor nóor say noonu taxaw nga sànni sa der julli ànd ak say noon ay godd di la sam yiy mat di la mat ngay kabar di julli doo dàq doo faxas jaayaale loola bala yàlla faye ak payam ba mat nga ngoor ko ba takk ko mu ne la loo bëgg ma defal la ko nga ne ko ijaan rujuwaani ilaa qawmi saadatana wala takfina yowma jamil xalq niiraan defal sama dellu gii di texe képp koo xam ne yaakaar na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon damay gis ne sëñ Tuuba ndamul jullit ñi la te téewul kat la muy nekk ci loolu lépp du tee ñaan borom xafiisu suñ ummata xayra mursali ani ladina kafaru bi rusuli di ñaanal di ñaan jullit ñi mucc ba dara du leen yàq kon sëñ Tuubaa amul morom faaw ñu di ko wax fii la fuute féete nag du fu tuñ fuute féete du fu tuñ tuñ amul morom des koo war a wax mbër ku nekk la jàggi ruux te sëñ Tuubaa li mu jëf dafa leer demal ci mbindam demal ci jëfam demal ci taxawaayam demal demal demal demal ci position bu la neex nga dem xool ko ci Serigne Touba noo koy xoole fu la neex loolu li ñu ci jàngale mooy melokaan woo xam ne da koy gis doxin woowu benn taalibe bu nekk war na koo gis nag lan lañ ci war a jànge Sëñ Touba daan Sëñ Touba man na Sëñ Touba raw na mais ciblé bi ñuy ciblé ñun pour wane ndam li sunu mbër am nan lañ ko war a def mooy fexe nag ba kenn du yebee lislaam wala nga yebee sëñ bi jaare ko ci noonu ku gën a bëgg rasulullahi mënta am ndax sunu sëriñ rasulullahi rek la bëgg boppam rasulullahi rek la ko jox léppam rasulullahi la la tàmbalee ci Cheikh Mahamadul Moustapha ba ci Cheikh Mahamadul Murtada lu mu am tudde rasulullahi daraam génnul yonent bi salaahu salaam ñëpp la tàggat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nun nooy war a defar suñuy comportement te gëm li ñuy wax te bañ doon ay foo murit wala ñu nekk ay murit yu effectivement wala ñu nekk murit yoo xam ne kenn xamul foo féete yëngutu rek sëñ Tuubaa wu moroom réew mi Bàmbaa ko moom lépp dëgg la mais yow mi koy wax fan nga taxawee ban position nga am ci loolu ban daayira nga bokk addiye yoo joxe sànc yi fi jàll ñu réaliser ko ci yoonu murid lu ci sa participation ndigali sëñ bi digle noo ca def li muy tere noo ci mel mais ñaari minute du nekk ñu sañ sanc kuréel ñii woote bëgg a yegg ci yàlla ñii woote bëgg a jëm si fu ne waaye wadde fa te mu ne su fee indi sëñ Tuubaa moo ne uri li wa ci maliki sabila kullu muridin sadiqin nabila bépp murid bu dëggal tege ci yoon wi maa lay woon yoon wi koo seen muy tatone rek dëggalu mais ku dëggal sëñ bee lay teg ci yoon wi nga ne jajj mel ni ak saxaar ci kaw braay doo wàcc ndax ur yi li wacci maliki sabila kullu muridin sadiqin nabila mu ay catégorie la murid murid sadiq murid salik murid bi door a ñëw ci quartier gi mën na sol te ni militaire mais taxul muy commandant taxul muy officier taxul muy général kon nit ki comportement bi muy déparé soobu ci mu rek tey yor sa ponkalum mbubb jël sa maxtu mu rëy teg ci jàpp na yegg nga ba kosse nga yow xeeb nga sax mag ngi jiitu woon ngir te defagoo dara sa bopp képp la ñor bu nee mën nga teg sa loxo sa dënn te mandar ngay tegtale ne murit nga mënu koo xam ndax bala nga doon murit doon julit ak muridu wal muminul muslim waxsini ladi laa yuridu siwa mardati la fi kulli aqwali wa afani sëñ tubaam bu doon tey ne àdduna ab foire la bu doon tey adduna làmb la mbër mu la neex yóbbu làmb joo yóbbu sëñ tubaam mu daan nattuwaayu àndaar boo ko natt ci sharia natt ko ci lislaam natt ko ci sunna lépp a mat ndax ilallaahi bil qurani wa sunnati lati hadat ni saraftul kulla wal qalbu xaashian kon moom kenn mënut a jam sëñ Tuubaa la ko sëñ Bay Jaxate wax moo sedd ab xol te dal am xel te buuri gëtit te doy sëriñ sipp ak yëfari kenn yëbu ko sëñ Tuubaa kenn yëbu ko kon lu ñu teg ci ginnaawam baa ñu bëgg koo gàkkal nu na ñu tuddoo ne sëñ bi lañ am ba noppi tey doxee nu neex jàpp yoon wi ay këlkin nii laa ko gisee nii laa koy yëgee du noo ko yëgi du noo ko gisee sëñ Tuubaa nee na lu mat a jëf-jëf naa ko ba mu laggi samay cër ngeen gis lu mat a wax wax naa ko ba mu làggi sama làmmiñ ngeen dégg li ci des bind naa ko ba fi ba léegi ku ñëw ne ci leneen yaa ca nekk waaye amul digle wu ko santaane wu luñ fi créé amu fi yoonu toppante la yoonu toppante la ak yoonu jëf sëñ Tuubaa nag lépp leeral nañu leeral lépp sëñ Tuubaa nee na mënta wajjaha ila rahmaani rahimi rafaqnaahu wa man tawajjaha ila rahmaani rahim maa sheytaani rajimi faaraqnaahu ku jëm ci yàlla te àndoo dara lu may yàlla kese jërul gestu maa ngi wax ànd ku jëm ci yàlla boole ci seytaane tàggoo nañu murit mooy jullit murit mooy ki sellal murit mooy ki dëggal kenn mënta Cheikh Ibrahima Fall nag waxoon na ko ba ba ñuy fay wax bàyyi jëf kon jamono ji jamonoy jëf la ñaata njabootu sëñ Tuubaa gi seen adduna yëpp saxal ndigal la tàmbalee Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim 1927 keroog ba ñu noppee gi Serigne Touba ba suñu bisub tey bii kenn ku ci wutal sa bopp kër baa nga wutal sa bopp ay immeuble baa nga wutal sa bopp say sa njaboot ay cité amul loo am ci ndigalu sëñ Touba ak liggéeyu sëñ parce que xam nañu ñoom réussir li sëñ Touba batale loolu mooy seen ndam taalibe bu nekk loolu war a doon sa yitt bañ a bokk ci werante yeeg débat yeeg saagante yeeg ku amul jot geeg borom xol bu tàng ndax boroom xol bu tàng du wax jàmm te ku la dàq jotul lu mu for la ki la jotul lu mu for sànni la te nit day xam boppam kon dañoo war a dellu siwaat xam sunu bopp xam fi ñu teg suñu tànk doon ay taalibe te dëggal te fexe ba doon murit bu wóor bañ a doon murit boo xam ne daal te ku tëdd xam nga sa bopp fexe ba suñu diggante sëriñ bi leer ñu yéenante jàmm lu waaye yéene boppam mu yéene ko moroomam te xam ne sëñ bi noppi na yonent bi ne kenn sa gëm du mat te li nga bëggal sa bopp bëggaloo ko sa moroom kenn ku ne yéene sa bopp te ber giinu ber Serigne Touba ñu gën koo ber gën koo waggar gën koo fonk ndax ku ko ber waggar ko fonk ko ku deful ni yow yaa koy raw tudd la jot. di sant waa Bichri TV jaare ko sëñ Mor sunu soppee bi waaye sëñ Mor Guèye xaside miinu feggool ak sëñ Mouhamadou Silla sëñ Daaru Dieye ak sëñ Mouhamadou Makhtar Diop. mbokk yi seetaan nag ku ci dégg ci wax ji loo xam ne njuumte la nga jéggal nu ko xam ne doomu aadama matul nul n'est parfait seul Dieu est yàlla mat doomu aadama matul waaye nag li ma wax rek fii la fuute féete daal du fa tum tuñ sëñ Tuubaa amul moroom daal faw ñu di ko wax wax gi wàññiwul dara te buñ la laajee nga tegle ko waral kon nag jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu